parce que Radel bi ñu ak léegi ñetti weer la waye ku nekk dégg na suñu plaidoyer ñu def ko ci plateau yi defuñ ko ci souf dañ ko def ci kaw bindu ko wax ko né maire yi dé am nañ ay soxla ci sen nekkine am soxla ci xaalis bi ñu war a mais am soxla ci am ay partenaires au développement président Macky Sall ku nekk xam né maire la won motax yagul dara mu donné une suite favorable à ce plaidoyer tay ji mu y yokal maire de salaire yokal adjoint maire de salaire yo conseil municipal ñamay indemnité ñu jënd ay pour pour pour les pour les mairies passeport diplomatique pour coopération décentralisée retraite municipale donc tous ces principes là tous ces éléments de plaidoyer yi nga xamné mon sur notre conceptuel bi président Macky Sall def une promesse ferme pour satisfaire kii la ko defal wala kële la ko defal lolu amul importance li am importance rek moy porte nañ plaidoyer bi té def nako bu ko défé défaluko ma Samba défaluko ma Demba mais maire Sénégal yépp la ko défal population Sénégal yépp la ko défal ñu koy féliciter di ko remercier ci lolu ñu organiser tay forum bo xamné bi bii maa ngi tey remercier waat président Macky Sall ak le premier ministre Amadou Ba ñu jëmmal suñu forum bi fay dal ko envoyé fi ñaari ministre le ministre de l'économie et du plan bo nan investissement boko ko ci forum investissement yónni nga kam fa wara yoni le ministre de la pêche ñëw gungé ko donc ñaari ministre ci benn forum maa kay dogu gis lolu nek nak dayo bu am solo bo xam ne premier ministre dox nañu ko président Macky Sall jox nañu ko waaye benen bu am solo bu forum bi moy mobilisation maire parce que bu ministre ñewon population yi ñëw te maire yi ñëw ñu du am solo waaye tay lu mat 150 cinquante élus teew nañ fi ñoo xamné ni 100 maires titulaires ay président de conseil départemental ay adjoint au maire ay conseils municipaux

20 millions et 100 millions de communes. donc c'est rek exemple la man ci sama commune te la valable commune multiplié par 5 mais il nañ a un niveau de développement bi Sénégal et Sénégal ak niveau d'attente de la population en termes de commodité loolu transfert bi fi mu ko yóbbu am solo mais dañuy ñaan dañ ñaan mu